ay doomam di ab taawam moom nag ma ngay wax rek miti di nga xam ne gisoon na baayam ba di ko dund ba mu nekkee dans le coma fii ci Dakar ginnaaw bi nag ci la daal di wuy ji boromam mu doon nag lu tiis ak lu metti ginnaaw rek bi ñu yëgee seen génnub àdduna ak baay boobu lee di wuyoo ci turu Amdy Samb di ab agent de police ca Thiès ba tey ab jéeya di fa am ndax nag benn ndaw bu toll ci quatorze ans maanaam fukki at ak ñeent la ñu daal di fekk ci biir néeg mu daal di génn àdduna moom nag anam ñu ko gisee rek jéem a pendre boppam en tout cas daal lépp lu ci mën di am daañu leen toppal xibaar bi ba xam euh, naka lay mujjee wax euh, ci euh, départ moom Mirma ginnaaw rek ab entretien bu mu doon amal ci benn site de la place moom Mirma moom rek ma ngay wax ci entretien ba di wax ne ci carrière am daf cee def faux départ li waral faux boobu nag bokk na ci single bi nga xam ne mi ngi ko njëkk génne muy Je t'aime mu bokk Baba Amdi mu doon ko jàppale ci production bi doonoon ab producteur am ci ki nga xam ne rek moo yàq carrière am ndax Baba Amdi moom le daf doon bëgg bëgganteeg Myrma ci boppam moom it mu jox ko boppam jox ko léppam yàlla dogal nag mu takk keneen te daf ko digoon takk dem ba ci ay waajuram ne leen seen doom ji di Mariama dinaa ko takk mu doon sama soxna waaye nag takk googu jul antu benn yoon nee na nag bi ko baaba am di woree toog na deux ans yoo xam ne da koy jooy bi mu noppee ci loolu itam yamul foofu ndax nag nee na dañu ko daal di violer moom Myrma moom le mu dugg nag quatre ans yoo xamante ni rek bëggatul góor di sentir li nga xam ne moom mooy jigéen loolu yëpp rek producteur na sax moom mëgg a expliqué ba tey amoon na fi borom kër waaye nag diggante boobu ba tey mujjul antu mu mel ni rek kon euh, moom Myrma moom le ay problème euh, sur la doon dékku dem na sax bay wax ni ñenn ci euh, producteur yu bari woo nañ ko fii ginnaaw bi nga xam ne rek jote na fekk Baba Amdy tacle yu bari yoo xam ne rek doon na ko dund ci métier bi la di musique te mu bëgg ko doon passion am waaye nag mujjul benn yoon ñime kenn koo xam ne rek ab producteur nga ndax li nga xam ne rek Baba Amdy daal dina ko ñoom ñoo yor musique ba nee na yooyu nga xam ne mi ngi door a génne euh, je t'aime am am na ci ñoo xam ne dañ ko doon ridiculiser et di ko def loo xamante ni rek bugg ko woon dem na sax ba émission télé yi buñ ko ci mësaana invité dañuy fexe rek nu ñu ko minimiser ba dañ naan ko sax dañ la fàtte woon euh, noonu rek la ñu koy defee ba émission ba jeex te du mës a dugg ci télé yooyu le dem na sax moom miir Myrma Bay expliqué ci rajo yi naan dañ doon effacer ay sonwam bañ ko teg mu doon nag mbir moo xam ne rek moom miir Myrma moomu le daal dina koy nettali ci ak dundam waar moom sax ma ngay wax naan son bu mujj bi mu mujjee génne dem na sax ba télé yi dañ ne ko boo fayu rek duñu la ko tegal mu doon ay mbir yoo xam ne rek ma ngi koy dund bi mu duggee ci musique beeg léegi wax yooyee nag mel ni Papis Konaté di auteur compositeur waaye tamit nekk itam ab producteur moom Papis Konaté moomu lay dafa mel ni rek dafay dëggal waxi Mirma yooyu ndax mi ngi naan ñoom sénégalais yi ci boppam wala ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite musuñoo respecté ñi nga xam ne ñoom ñooy artistes yi rawatina nag waykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci musique bi biir ku ci mel ni par exemple Ngone Ndour di PCA bu SODAV moom nag xaalis bi nga xam ne rek ñu ngi koy dégg ca waa SODAV yi ñu leen di tëgg hôtel yi ngi yëngu boîte de nuit ak ñoom ñooy def seeni single di ko teg ci télé yeeg rajo yi ñu ngi génnee xaalis kon nag xaalis bi nga xam ne waa SODAV ñu ngi koy jël te muy xaalisu artistes yi ana fan rek la féetee loolu nag di laaju Papis Konaté moom Papis Konaté nag yamul foofu nee na korité daaw ci boppam la ñu gëjal fayeeku seenub xaalis te sax korité daaw boobule moom moo génnoon xëbal ngir rek fay xaalisam boobule ak artistes yi nga xam ne rek war nañoo fayeeku te soxla seenub xaalis nee na nag waa Bresdeya lii rek moo taxoon ñu ko doon xeex waaye nag amul benn yoon changement bi nga xamante ni Ngoné Ndour uh, ñëw na fii ci Sodaaf doon PCA bi ba léegi rek changement amul ndax ñenn ci artistes yi dañuy soxla seenub xaalis te duñu ko jot benn yoon wax ci coowal Viviane ak Djidiack son ex manager coow la nag dafa mel ni rek daal dinay jugaat gën nañ koo yëkkati ginnaaw bi rek bi nga xam ne moom Djidiack moomulee di ex manager bu Viviane doon nañ ko de visa moom nag mu nekkoon rek ca kaso ba ginnaaw bi rek war nañu ko convoqué fële ca turbinal bu ndakaaru ba mu war a wuy ji ngir gën a leeral mbir ya ana fan lay mujj waxit ci ay vidéo lomotif yoo xam ne rek fan yi ñu ngi nemmeeku di ko gis ci réseaux sociaux yi xale yu ndaw a ndaw yoo xam ne rek ñoo daal di def seeni vidéo lomotif di ca def naka sudut noonu ak yoo xam ne rek xëy na lu bët mënta gis la te it teewul benn yoon ñu daal di koy publier ci réseaux sociaux yi ba sax ñenn ñu ci bari ña nga koy waxtaane jëm ci vidéo lomotif yooyu nga xam ne rek xale ya daal dinañu koy def ba noppi rek daal di koy publier mu doon nag lu askan wi yëpp di ñaawlu rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di suivre li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yooyu le wax ci Tange Tandian moom nag ñëwaat na rek ci coowal Wally Balago Seck ak ki nga xam ne rek moom mooy Youssou Dieng waaye tamit wax na ba tey ci coowal Wally Seck ak ki nga xam ne rek moom mooy Ameth Thiou nee na nag ñoom ñooñu le réeroowuñu benn yoon xëy na nag technique de communication la ndax nag gis nañu fi kii di Youssou Dieng laata rek muy annoncé li nga xam ne rek moom mooy sëy boobu mu doon joué ak soxna Bator defoon na fi ay vidéo yoo xam ne ña nga nekk ca piscine ba mu doon ca def lu doy waar ba ñenn ñi sax doon ko tuumal naan ab lomotif la waaye nag moom Youssou Dieng moom le ginnaaw bi ci la daal di génn rek di wane ne ab la moom Tantandia ma nga ñuy xamal ne Ameth ci boppam réeroowul ak Wally Balago sekk de ko que Youssou Dieng ndax nag ñoom ñoo ñu le ñoo bokk seenu Ramdaan te daan ci boppam ñoom ñooñu ñëpp ay famille lañu kenn amu ceeg problème ak kenn amu ceeg xaar ma ak kenn rax ci dool itam kenn ciy dugg na nga xam loo ciy def ndax nag ëllëg yaa ci rus ñi nga xam ne nag seen yoon nekku ci nañu ci maandu ndax nag ñoom ñooñu le muy Wally Seck di Youssou Dieng wala sax di Ameth Diouf kenn ku ci nekk rek boo ubbee sa xol sa morom nga cay fekk kon nag ñi nga xam ne seen yoon nekku ci nañu ci maandu bu baax a baax ndax nag fa ñuy juboowee wala sax fa ñuy àndaatee doo ko fekkee benn yoon technique de communication kott la te it amul lenn loo xam ne rek mën nañ ko cee jàpp lu dul loolu le ay musicien Wally Seck mel ni nag Fallou Ndiaye ñeneen ak ñeneen ñoom nag ña ngay xëy rek mel ni kuy tontu Amethou Jackson moomule ndax nag Wally Ballago Seck jour anniversaire am la doon féete ginnaaw bi rek ñoom ñooñu leen daal di koy bettee xéewal daal di koy indil ay cadeau yu doy waar moom Wally Seck nag ma gërëm waa kër Mbaye Sy yooyu le di gërëm it ña nga xam ne ñoom ñooy ay musicien ndax nag ma nga naan leen waa kër Mass Ndiaye ak Khady Seck ñoom rek laay topp ndax nag ñoom ñooñu lee ba may ànd ak ñoom ay tànk lañu te it ba may ànd ak ñoom dara xewul kon nag ñoom rek laay dëgmal ndax ñoom a jàpp ba ma kenn jàpp jàppale ñoo ma bëgg ba ma kenn bëggulee rax ci dool itam moom Wally Balago Seck ki nga xam ne rek moom mooy Omoro ndax nag Omoro dafa yëkkati ay xar yu bari daal di koy def ci bisub anniversaire am ngir rek daal di ko koy feeteel moom Wally Balago Seck mu doon nag mbir moo xam ne moom Wally Seck ginnaaw ba muy gërëm waa kër Khady Seck yooyu le dafa daal di tuuri xéewal wax ne ñoom ñooñu le ñooy fameem te it mënu leen a fay benn yoon ndax Mass Ndiaye ak Thione Balago Seck démb la woon tey soog a ñëw ca anniversaire ba ca boppam daal dinañu fay gis ku mel yëkkati na ab kaddu di wax ne rek bugguma kenn ku dul waali considéré wu ma kenn ku dul waali ndax nag man bambaali sekk donte sama baay ma penda sekk la nu koy wax waaye saa buñ ma considéré ba xam ma ci musique bi di ma dàqantalee bambaali sekk naan ma nduroo waali waali moom waali sekk moo tax waali sekk ci boppam moo tax ñu considéré ma ndax nag tollu ma fenn toju ma fenn defu fi dara kon nag bu ma nit ñi bëggee waali sekk rek moo tax kon nag man mii euh, musuma wax lu ñaaw ci moom musuma def lu ñaaw jëme ci moom ndax nag xam naa ni sama mag la te ku ko bëgg laa buñ doon xool xool ñeenti nit ñi ko bëgg euh, man maay première bi ndax nag sañ naa cee buuxante ginnaaw ba muy doon sama mag ab fansam la lool nag di ay kàddu yu Bambaly Seck mi nga xam ne rek coow lu nekk jugoon na fi ci digganteem ak Wally di leen fàttali rek ni euh, Coumba Gawlo Seck la diva la voix d'or daal di nay ñëwaat euh, sur la chaîne musicale ginnaaw bi rek muy annoncé son retour le 13 mai fële ca musée des civilisations noires jërë ngeen jëf. Wally Balago Seck le Ramdaan. kenn sonal ci aw ma billet billet amul jëla jënd sa billet gars yi bëgguma benn coow été lañ jëm mois de juin mu def tuuti tàng xale yi def tuuti choc góor yi def ay déchiré ma génn fu ma sàpp daan daan ñëw ñu bëgg leen le 3 juin 2023 yéen a ko doon laaj seen bëccëg noonu dem leen ngeen jënd seen billet yi nag bëgguma benn coow bëgguma coow ah.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 Dakar, notre plateforme d'information.